inna lillahi wa inna ilaihi raji'una milieu média bi na dëj amati na naqar ndax nag kii di ajaratu Daba Boye ñi gënoon ko ràññee nag ci émission bu mag bi nga xam ne nii daan na koo def ci groupe de presse bi di d média ji seen TV moom nag émission bi contexte bi rek moom moo doon nit ñi di woote mu leen di seetal ci loolu nag moom ñu ci daan profito du xam yenn ci jafe-jafe yi nga xam ne nii yaa ngi koy jànkuwanteel ci sa dund. bu laajee ay sarax moom ajaratu daba booy muy daal di lay orienté nga génnee sarax ngir rek daal di fànq musiba woowu wala sax lu ñu mel doon la yoot moom ajaratu daba booy nag ràññewoon nañ ko bu baax a baax ci liggéey boobu nga xam ne daan nu ko def ndax nag bu émission bi commencé waan appel yi rek day daal di tegaloo moom ajaratu daba booy nekk liggéey boobu mu doon def tey jii keneen koy def ndax nag ajaratu daba booy daal dinay wuy ju boromam tey jii ci dimanche ji ñi koy jaalee ay mbokkam di ko jaalee ñi nga xam ne nii ñoom ñooy groupe bi di D-Media waaye nag di seddu ak ñoom li di naqar bi di ñaan aji dem ji yàlla yëram ko bu baax.